li ñu fi indi dafa nekk loo xam ne ci ay jigéen la jóge woon wax nañ ko léegi ay jigéen yuy ay femmes ouvrières di faire pour réclamer de meilleures conditions de travail pour massacrer les. Chicago en Soxna wax na kon bi mu ngi Amérique di def di def ba Sénégal en ci pays yi nga nous ne incité ñoo commencé oui, la journée internationale de la femme, qui est inscrite dans l'agenda institutionnel du Sénégal. Nous avons fait des 2015 fait 2015, fait 2016, pour 2017, nous fait des en 2018, 2019, il y a 2018. Et nous qui fait des nous ñooñu dañ réclamer de meilleures conditions de travail de meilleures conditions de travail nous pouvons à la mémoire en leur mémoire le monde du ko la communauté internationale du ko Nous ren terminé thème de dafa un thème bu am solo muy autonomiser les femmes et les jeunes filles dans le monde rural ou en milieu rural le thème international mais le euh, temps est venu, le moment est venu. Activistes urbains et ruraux transforment la vie des femmes. Moi, je ñi war nañu sur la rampe de l'émergence émergence sénégal parce que te référence est le plan Sénégal émergent Donc, la mec, on des des défis mais on a avancé.

commission bi yóbbu na fa ay doo dem na ci pédiatrie bi yóbbu fa ay dons mais également dañuy dem ci daara yi di fa yóbbu ay ndimbal di dem fu nekk foo xam ne sociale soxla na ko ñu di ko def waaye ren na li nga xam ne mooy innovation bi boo gisee tey fii délégation femme rurale yi bëri nañ ci loolu li ko waral mooy bés bi seen bés la ñu fas yéene nag taxawal benn réseau nationale bu am solo réseau boobu c'est un réseau de développement mais qui va prendre en charge l'aspect et l'aspect solidarité parce que solidarité bu amul c'est un réseau national et même qui va prendre une dimension au niveau continental réseau de dina def solidarité dina def le social dina def dans le cadre du leadership féminin mais également dina def lu bëri ci développement Madame, de taxawal ay projet yu bëri solo wut ay partenaires mais suñu partenaire bu njëkk defe naa c'est son excellence le président Macky Sall bi nga xam dafa jël 40 milliards dugal ko ci entrepreneuriat rapide jël 2 milliards dugal ko ci biir ministère de la femme du genre et de la famille du feneen ak ci microfinance mais également ci yeneen ministères yi comme l'agriculture la pêche l'artisanat, le commerce ay font la formation professionnelle pour que non seulement les ñi am mais xalé yu yi am fu ñu lolu nak kon li ñu def ko Nous yépp na lu ñu def ko ndax xam pour projet taxaw le réseau national le réseau africain des femmes pour le la solidarité et le leadership fii ci Kaolack mais nekk siège bi parce que fii la juddoo ci Kaolack loolu nag def nañ ko parce que dañu bëgg benn cadre de référence boo xam ne dana mën a ëmb boole jigéen ñëpp comme ni ñu bokkee ndey bokk baay nii ñu bokkee ko ay jëm-jëm di liggéey di yëkkateendoo di dóorandoo ndax dañ ne lu benn mën fukk moo ko ko looloo tax ñu taxawal li nga xam ne mooy réseau boobu waaye nag defe naa jigéenu commune Kaolack ñoo sabab lépp parce que ñoo doon organiser seen 8 mars ñu nekk ne dañuy ñëw participer ci 8 mars rek Kaolack jigéenu Kaolack gàcce gàllaama ñu ngi leen sant di gërëm encore une fois son excellence président Macky Sall bi nga xam